Euh, nii la ko yàlla yàlla yàlla tubbe mais pour l'instant gis ngeen école bi daal dinay fees del del del del del del dinañ leen ko toppal nag euh, fii ci Actu set ñëw cher euh, cher internet dinañ leen toppal lépp li nga xam ni bon en moom moo aju ci vote bi lu ci mën a am rek dinañ leen dinañ ñëw teg tegle seen loxo. man la Ibrahima Diallo dëkk fii xaar yàlla di fi di fi daal waaw. waaw effectivement gars yi moom génn nañ en masse. xëy na dëgg la ci ginnaaw coow yu amoon ak yooyu dañuy gis ni maanaam après loolu yëpp mu ngi suñu ginnaaw daal fu mu toll ni maanaam xam nga maanaam jeunesse bi ñëpp génn nañu en masse pour maanaam ak accomplir ak citoyen bi quoi parce que tamit vote bi dafa am solo waaw lii la moonaam Sénégalais bu ne maanaam dafa war a maanaam voté daal loolu mooy yoon. violence bi waa nañu voté si jàmm ku si nekk maanaam bureau de vote bu ngay voté na ñëw voté. Madame delluwaat sa la violence bi dal ñu ko éviter lool lay lancer message aux jeunes quoi nañu arrêter violence bi. Baydi Ndiaye tout tudd xar la Vous Grand fla vote bi mom ni ko waaw machallah nit voté ci jamm ci waaw calme rek la fi gis. man dama ni nit bu nekké ci ah xam nga ki suñuy kasse yow yaay yow mais na fekk nga am sa carte. xaw ma ndax yaa ngi may dégg na fekk na fekk nga am sa carte xam nga waaw kii su vote jotee nga daal di dem sànnil ki nga xam ne moom nga bëgg a sànnil quoi mais vraiment tey moom li ma gis moom nice xëy na tamit bon kii ak li mu tombé weeru koor la xam nga weeru koor en général gars yi ñu tëdd moom di nelaw léegi nag xëy na moo tax waaw xam nga kii nit ñëpp daal di jóg daal di ñëw daal di fas yéenee def rek mu jàll mu jeex ci jàmm mais li ma gis moom wax dëgg yàlla macha allah jërëfët ni ñaa ngi ci jàmm nit ñaa ngi waxtaan ñii di kaf ñii di foo ñii di ree yàlla na continuer noonu. Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye tey sa sa teewaay fii ci école bi. waaw teewaay bi ñëw rek xool ki ma doy war na mën a doxal Sénégal ma voté ko rek si jàmm ak salaam quoi. waaw lan te ñu xam ne ñëpp benn lañu waaw lépp lu ci mën am que le waaw ku nekk nag am na fi nga far mhm. mais ku yàlla dogal ne moom moo gagné nañ ko nangu rek te jàppale ko mu liggéey dëkk bi. professeur Mamadou Sidibé je suis le coordinateur de la zone de Xaar Yàlla et responsable donc euh, de euh, du lieu de vote de l'école Xaar Yàlla. waaw donc euh, li ma ci mën a wax rek mooy que ne d'abord ñu sant yàlla parce que vote bi commencé na h Euh, bureau de vote yëpp matériel yëpp mot bulletin yëpp mot na nit ñi commencé nañu voter. ci jàmm vraiment force de l'ordre yi aussi ñu ngi gérer entrée beeg sortie bi. ku voté ba paré ñu génné la nga dem ku ku voté ba pare dootoo duggati donc pour le moment dal ya le calme plat wa gis nañ na dal mobilisation amna quoi yaakaar nañ na dal on va atteindre la barre des 60 à 70 de votants parce que vraiment depuis 8 h ba légui fi école bi fess del nit ñaa ngi voté di dem euh, ñi ngi naa ngi saafonteel kenn mënul xam ki kan la voteel ndax euh, xaar yalla ben bop la te kenn mënu ko xaar ñaar waaw li may dénk askanu Sénégal rek mooy que ne nañu xam ne ne fukki nit ak juróom-ñeent ñoo ñoo doon xëccoo pour président de la république euh, li ñu gis tey mooy que ne sénégalais yëpp génn nañu ñu ngi voté ci jàmm may ñaan rek fukki candidat yeeg juróom-ñeent yi résultat bu yàlla génnee ñoom ñëpp ñu nangu ko comme ça bu subaa ñëpp xëy dem liggéey Sénégal nekkat ci jàmm ni ñëpp commencé waat seen liggéey normalement. Mouhamed Gaye tudd maa ngi dëkk fii xar yàlla teewaay bi mooy ñëw jël sama def sama wàllu citoyen sénégalais. waaw ñëw naa voté si jàmm daal te gis naa ne affaire mi ngi passe si jàmm quoi que le que le meilleur gagne yal na yàlla def jàmm def ko si réew mi Sénégal ku si nekk xam li nga moom yal na yàlla def jàmm si barke Seydina Mohamed. man Ami Mbaye laa tudd dëkk Grand Léona Grand Yoff. waaw sant yàlla rek ndax moom lañ doon ñaan yàlla yal na ko yàlla yeggali mottali ko bañ a am histoire bañ a am dara ki nga xam ne moom la fi yàlla teg ñoom ñëpp ñu xam ne loolu la fi yàlla teg ñu sant gërëm. mais école bi bari na nit am na ay nit wax dëgg yàlla xale yaa ngi voté mag ñaa ngi voté sant yàlla. alors euh, ndaw waa ndaw yi li ma leen di leen ñaan mooy loom ñoom lu ñu bëgg rek xam nga fee ñu dañ leen di leen gunge rek li ñu bëgg nag yal na ko yàlla mottale ci li ñu te yàlla jàppale leen. Moulay Camara euh, habitant de Grand Yoff xar yàlla. ni gaay génnee vraiment dal na sama xel. donc les gens ont compris le message et puis ben ils sont en train de dérouler quoi y a le yàlla may ñu ndam ñun nous ma ne may ñu ndam ñun xam quoi et voilà voilà c'est ça bon que les gens protègent leur vote nañu rester surtout les jeunes nañu rester dans les euh, centres centre de vote sécurisé euh, de pouy beeg yooyu et puis euh, comme ça ñu baña tam dugg ci ay violence ak yooyu quoi tu vois bon comme ça tout va se dérouler normalement quoi. Mam Sey Gueye la tudd di coordonner PASTEF euh, Xaar Yàlla je suis membre de PASTEF Grand Yoff donc comme ni nga ko gisee rek macha allah euh, nit ñi nañ massivement di voter depuis ce matin centre bi dafa fees dellu li ñu doon ñaan ñu ko am te ñu ngi ñaan muy continuer moy que ñu ngi voter ci jàmm ak salaam nit ñaa ngi di dugg di voter ci jàmm ak salaam sans problème donc signalé guñ ñu benn incident voilà le seul problème mooy euh, parfois euh, euh, indication yi nga xam ne mooy nekk données yi nga xam ne mooy nekk ci carte bi parfois maanaam bureau de vote bi centre mën na am erreur mais loolu ñu ngi koy gérer ñun ak lien bi nga xam ne mooy wër ma di ko di aider nit ñi di leen vérifier effectivement ban bureau lañ nekk ci liste bi voilà non non am ah, signalé guñ ñu sa problème Nous avons nit ñaa ngi voté daal macha allah normalement sans problème. bon lii lañ doon ñaan parce que lii la Sénégal xam lii lañ yàgg a xam ci Sénégal euh, c'est ça la démocratie et il faut donner l'opportunité euh, aux citoyens de choisir Nous, nit ñi ñu ngi ñëw di xool tànn ki la neex nga démocratie donc le futur est am yëpp tout yëpp tuur bi coow am finalité bi lii la woon mooy que ni euh, ku nekk def devoir citoyen comme il faut et sans problème. te du am benn pression pression loolu lañ doon ñaan te loolu lañu am tey et j'espère que ça va continuer ba ngoon ñu def dépouillement euh, suñu suñu candidat jël ndam li à savoir Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye je vous remercie. Euh, Marie Mendy laa tudd. Euh, mm. ah xanaa pour sànni ay carte rek pour ñu am ci jàmm rek ak salaam waaw mu am ci loxo bu sedd guy. Euh, madame Ndiaye Henriette présidente du bureau numéro 2 à il y a euh, euh, la secrétaire madame Koulibaly il y a l'assesseur monsieur Sadio il y a un membre du Sénat il y a les représentants des partis politiques qui sont là. Le vote a commencé à 8 heures. tout, se, tout se passe normalement. Il n'y a pas de problème. On n'a pas eu de problème. Voilà, j'avais que ça à dire.